ñuy topp Ahibahil Khadim TV ci biir réew ak bitim réew dellusiwaat nan bu baax di leen nuyu di leen ziara bu baax di leen ndokkeel ba tey ñi ngi wéyal ni rapportage yi noo ngi fii ñi ci waañu Ahibahil Khadim li nusrati dinul xawim bi ñu ñëwee fekk na fi sous commission restauration kin fekk ci jëwriñ ji di sëriñ Lamp Diop sëñ Lamp ginnaaw bu la nuyoo ba noppi ziara rek ñu doon taataan ay kaddu rek ci fii la ñu leen fekk ci liggéey bi ak fi ngeen ci toll nii wàllu mbana yeeg wàllu xéewal yi incha allah sañ sëñ Lamp nga dikkal ñu ci bu baax a baax. waaw salaamaaleykum sëñ Modou Diop ñu ngi siyaar bu baax tey jégalu di ñaan Cheikh Moustapha suñu borom yàggal ko fi damay ko ak wér. waaw mel ni comme nan nga ko waxee rek liggéey bi moom ñu ngi tey mi ngi avancé bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla nit ñi démb ban ko waxee ba tey ñëpp dagg ñi bokk ci commission bi dagg nañ seen yitte maam ñëw bi ñuy liggéey it li ci ab liggéey daanaka li ci ëpp solo. def nañ ko ndax fi mu toll nii euh, ñu ci wàllu xéewal yi nga xam ne bernde la ndax bis bi sëñ bi daan ne bisu bernde la ci xéewal yi ngeen xam ne def ngeen ko mooy qualité yi nga xam ne def nañ ko mooy xeeti bernde yi soo ñu mënoon digal sëñ Lamp. waaw maanaam ne qualité yi wax dëgg yàlla ne maanaam ni comme loolu ñu la wax waaw. ba ci wàllu liggéey bi taxawaay bi nga xam ne su commission restauration def nañ ko ci wàllu liggéey bi naka ngeen ko séddale bu baax baax ci mbokki soxna yi ak mbokki góor yàllay waaw mu mel ni comme sous commission yi moom maanaam comme ni mu amee ay góor am ko ay jigéen ñëpp benn yëg-yëg lañ am muy bu sëriñ bi santaane ñu am pas-pas def ko ni mu ko diglee wax dëgg yaay la it keroog bu ñu jotee ndigal ak léegi def nañ ci suñu programme ñun góor ñi jigéen ñi def ci programme bi ñu bokkee Euh, dañuy wax góor wax jigéen waaye liggéey moom lépp lenn la ndax bu ndikkee ñooy bokk maam ni góor ñi wet gi nga xam ne ni si ni moom moo ëpp yërmande te jigéen di ci ëpp lu muy doxee ñoom it ci seen loxo ko teg waaye daal wax dëgg yàlla ñoom ñi nga xam daal yàlla dogal na ni ñu féeti fii damay wax chaque jour ni damay yaakaar moom ñu gën a doon ay jàmbaar moom ci ñu boole liñ bi ndax Euh, jàmbaar gun jàmbaare ak nangu gun nangu ak maanaam ne am pas-pas goo xam ne am nañ ko pas-pas ak euh, def xel goo xam ne def nañ ko xel ci seen liggéey ñun ñu ñaan ñëpp ñu day di ak tawfeex sëriñ bi waaw loolu moo denoon suñuy kàddu gi wergoo gi jërëjëf sëñ Lamp waaye jërëjëf mbokki téléspectateurs yi nga xam ne taamu nañ di topp Ahibahil Khadim TV ñi ngi fii ci waañu Ahibahil Khadim lunu saddinil xawim muy xéewal yi nga xam ne waajal nañ ko ngir bis bi te ñu xam ne bis bi njàngub alxuraan la njàngub xasida la waaye ay bernde dajee bokk bu baax a baax te ahibaawul xadim lu supporté diineel xayim waajal ay bernde yu am solo kon su ko defee rek da ngeen ñu des di topp mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp ahibaawul xadim TV ñu wéyee leen di yeneen rapportage ba ci kanam incha allah rabbi wasalaamaaleykum wa rahmatullah. santaat bu baax a baax sëriñ bi di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool du ànd ak wér waaw mu mel ni tey euh, dañoo nekkoon ci journée bi euh, ñu yoroon commission médical bi si poste médical avancé bi nekk euh, Darou Khoudoss di ko taxoon a jóg nag mooy taxaw nit ñi suñ ñëwee si wàllum pañ meegi loolu daal looloo ko gënoon tax a jóg léegi nag poste bi li ko tax a jóg daa xaw am xaw am tuuti coppite ndax daanaka mbooloo fu ñuy daje day faral di am ay buuxanteeg yooyu léegi nag dañoo taxawaloon poste yi pour waajal bu fekkee am na kenn ñaanu ko suñu borom jiix yi boo xamante ni dinañ leen war a taxaw taxaw bu gaaw mën leen jàllale ñu ñu taxawal leen noonu kon bu ko defee si lu ko composé man maay responsable bi am na ay boo composé na infirmier yaa ngi fi sage femme yaa ngi fi si wàllum garab yi tamit médicament d'urgence yi nga xamante ni c'est des médicaments de première nécessité soxla nañ ko ngir mën a taxaw nit ñi si nu mu waree ak nu mu gaawee am na fi itam am nañ ambulance boo xamante ni également disponible na pour les évacuations si nécessaire si gàttal daal loolu moo moo moo moo composé woon équipe bi ak euh, dispositif euh, sécuritaire beeg ak sur le plan sanitaire ak yooyu yëpp di tubaat bu baax a baax ci kàddu bi bi mi ngi nuy jottali kàddu sëriñ bi kàddu Cheikh Moustapha di kàddu cantam ak i ngërëmam yu kawe waaye nee na kàddu cant yu ak ngërëm yi nag nee na sëriñ bi nee na mi ngi koy tàmbulee ci ku tedd kii di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké te nee na wax li mu wax lii dan ko cee yokk ngir sant waaye sëñ Mountakha wax léegi jumaa ji doy na sëkk waaye nag cantuk sëñ Moustapha Mohamed ci sëñ taxaa ak i ñaanam loolu la Seex Moodu Lamin bëgg nu jottali ko ak lu jëm ci nun donga yi kon nee na sëriñ bi nee na mi ngi seereel adduna ne mi ngi sant sëriñ taxaa mi nga xam ne liggéey bu tedd bii moo ko digle te lépp di njëriñal adduna ak àllaaxira ndax sëñ Tuubaa daa wax ne bala ngeen a jëf néeg leen ba am ndigal ndax dafa bokk ci nangu seeni jëf ngeen am ndigal kon am nañ taw fexi ndigal ñaare bi len la lu digal mooy jàng xasida yi sëñ tubaa yi te jàpp na ne lu mel nii tey la ma am ci àdduna ba sëñ tubaa bind xasida yeeg léegi mel na ni lii tey la ma sa am muy bis boo xam ne sëñ tubaa ko wooteel boppam ne kaay leen jàngal ma sama xasida yi ci bis sàngam waaye kaay leen jàngal ma ko tam ci barab bii nga xam ne moo ko gënal ci barab yépp tam ñaanoon sun borom ne ko hëb lii idaamata maa tuhibbu wa tartadi fii maskani Touba daal li ma lay ñaan mooy yow yàlla sunu borom lépp loo bëgg wala lépp loo xam ne sa ngërëm a nga ca nang ma may loola nañ ko saxal Touba nañ am Touba kon Cheikh Moussa Mawet lool loolu ne na nu xam ne loolu ci tawféex yi ndigalal sëñ mu yi loolu ci la bokk rawatina nag xasida yi nga xam ne moom la wax ne nan ko jàng te sëñ Touba wax ne xasidaam yi lépp ngi ci ndax dadaa wax ne ci njaareem la ko daa waxee te ngeen di namp di namp si tey ngeen di ñëw di nàmp si ci man mankat kat jaboot laa ju bari soow te duma muural maanaam du ma feral kenn waaye nag sama bat sama bat maanaam sama ween mooy sama xasida yi loolu suñu tuwaa ko daa wax tey ngeen a ñëw di nàmp si ndax njab jaboot jaboot laa ju bari soow te du ma feral kenn dama lay nàmpal di la wéel rek waaye nag sama batt bi ñuy nàmpe mooy sama ween mooy xasida yi kon bëccëg bi bëccëg bu ràññi la yaakaar naa bu ëllëgee bu dajee ay moroomam dana fees lool kon ndokk ñu sant ci yàlla ci xasir yi fi jànq waaye nag ci ndigalal nag ki nga xam ne moom rek la ñuy déglu mu Cheikh Moussa Mouhamed Mbacké yàlla na fi yàgg mu Moussa Mouhamed yàlla na fi yàgg yàlla na wér li bëgg la Sëñ Tuubaa yàlla na ko def ni mu ko bëgg ñun dañoo am tawféex ci tawféex ndax Cheikh Mouhamed Mountakha daa joxe ndigal li ñépp loolu mooy al isnul am waaye nag ñun ñu boole al isnul am ak al isnul xaas ñu amaat xaas ci biir mooy ki ñuy digal nun nga xam ne lu mu wax rek mu def sant nu liggéey bii tey te tam ànd koog nun nag fee mu nekk mi ngi ne jàkk ci nun keroog ba ndigal li jógee mu jot la ko bàyyi sëriñ Jóob mi ba fi ma waxee yow ba bii nga ci mujj jot na bàyyi sëriñ Jóob mi am lu mu ko wax mi ngi ne jàkk ci nun liggéey bi ñor ko lool mu am lu mu waxit keroog ba mu koy digle ndax nee na moom Cheikh Moustapha mboolem li yi ñuy dégg ak yi ñuy gis muy niru ay tiit ak njàqare ak lu ma doon nee na ñaan suñu borom dong barkeb sëñ Tuubaa moo ko fi mën a jël keroog boobee mu waxee loole ak bi mu jox bàyyi sëñ Jóob ndigal li matut benn minute wala ñaari minute te loolu xasida sëñ Tuubaa yi rek moo ko man te xasida yi ñu fi jàng yëpp genn ku ci ne mën na loo xam ne xel attunu ko ndax sëñ bi moo wax loolu moo wax ne sama xas sama xasida yii saa yu ma jëlee sama xalima di ko bind aras isa katabtu tëzza arsul baaxi wa sabaxat malaa'iqu tibaaxi saa bu ne tas xalima rek aras yi jëkk jaayu malaayka yi di wax subhaanallah ngir sama xasida yi loolu sëñ Tuubaa moo ko wax waxaat ne xasida yi mën nañ lu ne xasida yëpp mën nañ lu ne danañ jënd genn misaal muy mawaahibu naafeex bi nga xam ne doon nañu ko jàng léegi ak muqaddamatul amdaax ak jaalibatul maraaxib bu ci ne sëñ bi wax na ci loo xam ne tegtal la ci ne ju wóor ak yaqin ju war a am ci ne xasida gaaw ci faj aajo ndax xasida gee di mawahib wax na ca ne day jox ab taalibi liimaan ak lislaam ak lihsaan wax na ca ne ku koy jàng da lay jox sahaadatu darini wax na ca ne ñaan naa sunu borom ñaan naa sunu borom xasida gii di mbégtam rasulullahi waaye déglu li sëñ Tuubaa wax lim ni mu bëgg yonante bi xay su xuri at la wax saa bu jàngi xasida gi wala ñu bind ko waaye sëñ Tuubaa xam ne ñëpp mënuñu jàng ñëpp mënuñoo bind mu ne aw nu sira ilayha saa boo xam ne taalibe bi ubbi na xasida gi xool ko rek fa yonent bi nekk ci Madina na nañ bu ko réew nay bëgg ngir liggéey sëñ loolu wax ci xasida googu waaye nag mu demaat ba ci xasida ga ne yow yàlla suñu borom maa ngi lay ñaan xasida gi di mawaahibu naafi' araf wu ne bi kulli harfin min hurufi wenn araf wu ne man Abdul Xadim nag ma ci defal ay bégte maanaam ridaakal akbar sëñ tubaa nee na moo waxee bu wenn araf boo jëlee bayt bu jëkk wa yaakaar naa du ëpp fanweeri af ak ñett 33 boo ko multiplier ci xasida gi gën gaa néew gën gaa néew moo waxee bu naafe mat na juróomi junniy araf ju tegal ñeenti téeméer te sëñ tubaa nee na sëñ tubaa nee na wenn araf bu nekk loolu ma jox ci ngërëmal yàlla ridallaahil akbar ci moo waxee bu naafe waaye nag bu demee ba ca mu ñaan suñu borom ne ko na nga ko def mu bokk ci xasida yi nga xam ne xóoru éni yi ci àjjana dañuy jàng xasida googu delluwaat tegaat ci ci mujj nag ne maa ngi lay ñaan taalibe yi ak ku mën a doon bu jàngee xasida yi na doon ci moom saxaadatu daara yi am na foo xee daa wax ne saxaaba yi saxaaba yi laa ko may saa bu ñu jàngee xasida mu xaddimaat wala wenn bayit ab ab ab ñu yëkkati ko fa saxaaba yi nekk saxaaba yi bu nekk na yëngu fa mu ne yéen ñu ngi ko jox addiya mu xaddimaat ilaa xirda an saxbi nabi xaa idan lahum suróoran matee yantiq bi mat xiya motori ak yeneen ak yeneen yu dul jeex kon xasida yi sëñ Tuubaa yi lépp ngi ci te ni mu ko santaane Cheikh Moustapha diggalu ñu def ko mooy bind ko wala jàng ko wala déglu ko wala xool ko wala am ko juróomi juróomi sart yi moo ne ci xasida yi loolu sëñ Tuubaa sart ci xasida yi pour jariñu ci da koy mën a bind wala nga mën koo jàng wala nga mën koo déglu wala nga mën koo am wala nga man koo joxe bi ay wàccin bi nabi la amal la lox ci ci xasida Jaalibatul Maraaxib kon sëriñ bi nee na suñu xel dal bu baax Cheikh Moustapha Mohamed loolu la sëriñ bi du jottali ci bisu tey bii ci ndigal lii waaye nag ci barab bii ñu ko defee ci barab bii ñu ko defee nga xam ne la ñuy seet di ko wut xawma fan de waaye fii bu ko fi accident koo fekk kon loolu tawfeex ju rëy rëy kon nee nañ ci sant yàlla bu baax ndax ku tedd kaa ngi nii kat ñu yeggee ko lool mu ngi nuy dégg te mi ngi janoo ak noonu te sëñ Tuubaa moo bindu xasida bind ci daarul xudduusi li rabbil aalamiina mursili ahmada xawma lan de waaye daarul xudduus moom rabbul aalamiina mursili ahmada ko moom kii yebal ahmadu moo moom daarul xudduus kon fii toog mooy barab barabu kii joxe noonu fi lan toog di ko laaj barabu kii joxe fi di ko laaj daarul xudduusi li rabbil aalamiina mursili ahmada kon sëñ bi na xel yi dal bu baax tan fonkaat xasida yi xasida yim nu joxoon nga xam lii ndolleen la ci muy muy juróom-benn weer yu njëkk yi xasida yi am taax yan ci daa jàng ak juróom-benn weer yi ci topp muy xasida salawaar yi ñu ci dee jàng sëñ bi ne nañ ko gën a fonkaat te gën caa sax te xam ne loolu lépp ñu ko ànd ak noonu seex moom tamit wax na ne sëriñ bi nee na bu loolu lépp jàllee nan xam ne sunu gànjar nag noonu li nga xam ne bu ëllëgee bu ñu yëkkati drapeau yi. mooy drapeau bi nga xam ne bu jógee ñëpp xam ne waaye jàng ne mooy bis bi nu dëgmal di xesiroon moo xam ne bisub sëñ Tuubaa boobu nee na sëriñ bi nee na Cheikh Moustapha nee na na lii doon waajtaay ci magal gi magalu Daaru Xudoos gii nu jëm xesiroon muharram Cheikh Mamadou Lamine nee na Cheikh Moustapha nee na ñu dem ni lépp nañ ko jàppe junni yu waajtaay yu ñu war a waay yoo lii mutul benn ca loola ndax lu boo bis boobu rek la nu am kon nee nañ ko waajal bu baax ci pos pos yi ci positif yi ci lépp luñ ci daa def nee na bu jógee fii rek nan daldi waajal loole kon nee na mi ngi soñu ñëpp nee na nag mi ngi gërëm ñëpp ci turu sëriñ bi di mbooloo mi di ahibaalu xadim li nusrati diinil xawim te sëriñ boo xam ne mooy sab jumtukaay bi ma doxale sama diggante ak suñu borom di ko ci liggéeyal képp ku ci nekk li ma nekk maa ko ànd yow kon mooy ah sëriñ bi nee na Cheikh Moussa nee na mi ngi gërëm ahibaalu xadim gi yëpp ci mboolem jëwriñ yi dale ci moom mii nga xam ne mooy suñu jëwriñ nun ñëpp bàyyi sëriñ mbakk gi ngàcc ak mboolem seex sëñ Tuubaa yi ànd ak moom nga xam ne ñoom ñëpp takk nañ seen laxasaay topp ci gannaaw ngir jëm Seex Mustafaa Mohamed sëñ bi ne na ngeen xam na ngeen jot li ngërëm yooyu te seen i njaboot bu ngeen demee naka noonu tam an ansaaru diini fu ñu fa mën a ne ñu ne ci biir réew mi ak ña nga xam ne ña nga ca bitim réew ñëpp ak waa diaspora bi ci turu Serigne Modou Mbaw ak Serigne Baara Sall ak donge laxasaay ci turu Serigne Baaraloo Serigne bi nee na ñoo ñii laxasaay googu yi mooy laxasaay ko ay yépp ku mu ëmbaale na nga xam ne yaa ngi li mu bëgg te it lépp loo joxoñ na nga xam ne mi ngi ko ànd ak yow kon neen cant googi mi ku nekk ci ñooñi ma tudd na jottali ak njabootam sëñ baara nee na nga jottali sa njaboot cantuk Cheikh Moustapha Mohamed ci liggéey bii ci taxaw génn ko taxaw ci ni mu ko bëggee waaye nee nan xam ne sëriñ bi de seere na ñaari mbir yoo xam ne du dañ ko seere te doon nu ko téyel ba ci kanam sëñ nee na cofeel génn ko ëmbal moom sëñ sëñ Moustapha Mohamed ak nangu génn ko nangul nan wóor ne xam na ko téye na ko tey dana ko jébal ka bu bisu delloo baa dana ko jox ka nga xam ne dana xam ne suñu jëf yi wàccuñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu muhammadun salla alayhi llahu ala alwara faddalahu mawlaahu nabiyuna ahmadu ma daanaahu abdun lada baaqin lahu adnaahu rasuluna ahmadu faaqa rusula walanbiya faddalahu man arsala basharani maa rida muhammadu صلى وسلم عليه الصمد بالله لم يات وليس ياتي مثل ابن عبد الله ذي الآيات كتابه كل كتاب نسخا وإنه بغيره لن ينسخا من رام في القلق نصير أحمدا أعجزه من لا يزال صمدا فمن شاء فليؤمن فرح مولد النبي محرما كما له خاد العلا والكرما ملك مولد النبي سفرا بشارة خالدة لم تكفرا نفع مولد النبي ربيعا الأول الذي أرى الينبوها شرف مولد النبي ربيعا الآخر الذي اعتمى المتبوها أكرم مولد النبي جمادا فلا يزال شاكرا حمادا